dégg nga manifestant yi ñu attaqué gendarmerie bi ah ngeen actuellement manifestant yi ñoo ngi sant yàlla brigade de la gendarmerie bu waaye ah, am na benn gendarme bu ñu si xaañ euh, le commandant attaqué nañ ko ba xaañ ko xeer. gaa yi ñu ngi actuellement gaa yi la gendarmerie waaye ah, bu waaye day na waar. dommage gars yi attaqué gaañ nañ actuellement gendarmerie bi euh, commandant bi ñu ngi ko sànni xeer même am na benn gendarme bi nga xamante ni da nga ko lancé ci reer ci lex bi quoi ba mu dagg actuellement ñoom ñëpp ñu ngi ci biir ñu ngi làqu si biir xam naa ni renfort la ñu wut ma gis manifestant ñu ngi sànni affaire c'est un peu dommage ah ñaaw na ñaaw na waaye waaye ah mais, eu penso que me preparo. teguñ ko fenn. lu lay wax nii li ngay def ni teguñ ko fenn. nit ki mënoo encaissé dix mille xalaat joxoo kuro. nit ki boo koy fayagu teg ko si yoon waaye teguñ li ngay def ni teguñ ko si yoon. tirer ñu ngi tirer balle en ah, commandant tirer deux balles faux ils ont attaqué Jakarta Manila gis ngeen ko gars yi la gendarmerie ils ngi sànni gendarme yi tëju nañ donc yëpp état Sénégal la vous êtes en direct dans le passé Facebook de Omar Drame en relation avec les autres internet qui sont à travers le monde vraiment c'est beaucoup dommage commandant mu ngi tiré bal bi gis ngeen dañuy dégg bal c'est le commandant qui tire les balles commandant baa ngi tiré ay bal ay bal Tellement, nii amuñu renfort actuellement gars yi yàq na ngari wala seng bi Vous voyez. ngeen ko autorité administrative Koungheul